noddu googu nag tey jii nga xamante ni nag euh, ci la ubbi jumaa ji nga xamante ni moom moo nekk fii ci euh, Poroxaan muy nag euh, date boo xamante ni bu historique la di benn fan ci at mu njëkk mi nga xamante ni moom mooy atum jullit yi ci atum 1442 yamook bisub àjjuma di ñaar fukki ak ak benn ci li nga xamante ni moom mooy août ci deux mille euh, deux mille vingt kon nag euh, bis bi nag ci la ñuy tàmbali mu mel ni ki rek xam naa ni ñu ngi tàmbali li nga xamante ni moom mooy euh, bayaan bi dañuy daal di dem rek ci biir li nga xamante ni mooy jumaa ji ñu teewlu waxtaan wi. fàttali yéen a ngi suivre de façon synchronisée mboolem média yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci yoonu murid tey ji ñu lëkkaloo di wane li nga xamante ni moom mooy ubbi teg uh, juma ju uh, Poroxaan di liggéey boo am solo boo xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ko tàmbali ca atum 2009 ba tey ji nag mu àgg mu teew ci boppam fas yéene ko yi tamit uh, inauguré muy nag liggéey boo xamante ni liggéeyub yàlla la liggéeyub lislaam la liggéey boo am solo la kon nag ñu daal dem rek ndokkeel bokki jullit yi fi daje yépp ci xew-xewul islaam bu màgg bi dajale nu fi nun ñi tey nun ñëpp nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel bi ñu di ji jiital suñu sang bu tedd bii di Cheikh Mouhamadul Muntaqa bu ñu ko siyaaree ndokkeel ko ndokkeel nañ njabootu xaadimu rasul gi fi nekk yépp ñu ngi rafetlu bu baax liggéey bu sell bii nga xamal ne amalal na ko sëriñ Touba ci toolub lislaam di ñaan borom bi tabaraka wa mu nangul ko te nangul ñu liggéey la boo xam ne bii liggéey bu am solo la ci lislaam ndax julli ci lislaam dafa am wàccuwaay boo xam ne geneen jaamu gudul moom amu ko jullik mbooloo itam doon sunna su dëgër tabax jumaa itam ngëneel lu rëy nekk ci bu ngeen bàyyiwaatee xel waxi yonante bi sallallahu alayhi wa man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallaahi banallaahu lahu baytan fil janna yàlla na ci sëriñ yàlla tàbbal suñu sang bu tedd bii te tàbbal ci képp koo xam ne àndoon nag moom ci liggéey bi le ñi ngi koy rafetlu bu baax di ànd ñun ñëpp war a fàttaliku rek li nga xam ne moo fi andi woon soxna su tedd sii te mooy ni ko sëriñ bi faral di waxe rek kawel baatu suñu borom bi nga xam ne moo baat yépp moom la fi àndoon ak sangam bu tedd ba ko yàlla boole loon di sëriñ Mbàkke Mor ñu ñëwoon fii wuyu si woon woote jàmbaari lislaam ja jihaatkat bu mag ba muy al imam maba radiallahu anhu waaye bi ñu ñëwee nag ñoom seen pas-pas ak seen yéene ju sell ak li leen taxoon a jóg jóg doonoon dëgg ci ñoom moo tax tey ginnaaw bi ñu demee téeméeri at ak juróom benn fukk yu manqué ay weer ci ati lislaam bi soxna jaare wone wane gannaaw ak loolu yàlla di gën a wanewaat ay jeexitam di gën gën a feeñalaat mbiram ginnaaw téeméeri at ak juróom benn fukk yu manqué ay weer ku ci yàlla mën a baaxe kenn fàttewu la balay defalati lu toll nii war nañ cee jàng ne liggéeyal yàlla rek mooy li am solo kon jullit bi fu mu nekk na fàggu ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala loolu rek mooy li am solo ngërëmul yàlla lu wér li sëriñ bi waxoon rek ba muy liggéeyal yàlla ak bi dële na naxu naxu leen woon waru leen woon moo tax yàlla ak yonant bi it koy fay fay gi lu ñu gën a jëm kanam rek ñu gën cee teg bët kon nag loolu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax gën a santaat itam Cheikh Mouhamadul ngir mbir yu baree baree baree bari yoo xam ne war nañ ko cee dool delloo njukkal nun murit yi ngir ni mu nu def ni mu ma tudd ci ñaar rek ngir ni mu nu defal barab bii nun murit yi loolu amel nañ ko ci ay njukkal ak i cant yoo xam ne yàlla rek ko xam waaye ñaareel bi itam fàggu gim nu fàggul ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa muy jàmbaari lislaam ji ji nga xam ne yéeneem ju sell ak cofeelam ci sëriñ Tuubaa mënee su ko takk mu su koo natt mu ne su koo lim kon nag Cheikh Mouhamadul Bachir moom nga xam ne moonu fàgguloon ci sëriñ bi yàlla nañu ko yàlla fayal te fayal nu ñi mu bokkal sëriñ Touba ñëpp ndax liggéey bi ñoom ñëpp la ko fi defal waaye ñu bàyyi xel ne itam sëriñ bi bu fi defee barab bi dafa bëgg itam ñu bàyyi ci xel bu baax di fi ñëw di ko dundal ngir mën a jariñu ci la yonent bi waxoon ne ida raaytum arrajula yactaadu almasjid fashhadu lahu bi iman ku ngeen gis rek mu baaxoo jàkka di fa dem wala mu di fa nekk di dem ak dikk na ngeen ko seereel ak ngëm te loolu mooy li yàlla waxoon rek ci alquranul karim innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kenn ku nekk xam na itam saa yoo laabee sa kër ci ni ko yonent bi waxe dox dem ci benn néeg ci néegi yàlla yi ngir jooxe fa faratay julli ci faratay suñ farata yàlla yi jéego boo jéggi rek suñ boroom sippil la ca bàkkaar nga jéggi beneen jéego suñ boroom yëkkatil la ca daraja loolu war naa tax war na noo xemmeem loonu ñëpp jàkke ji doon suñu barab yàlla baaxee nu itam ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy dundal ba tey yonent bi waxoon na ne itam ku xëy kuy dem jàkk ak a ñëw yàlla dana la waajalal na mu doon sa wàccukaay saaboo demee ñëw kon nag loolu yàlla na ko yàlla defal noonu ñëpp te defal ko sëriñ bi ndax jàkkakat ni ko yonent bi waxe woon ba tey mooy néegu képp ku ragal yàlla te képp koo xam ne kii jàkka mooy sa néeg borom bi tabaraka wa dana la warlul jàmm war warlul la ab noflaay warlul la yërmande warlul la itam nga jéggi siraat dem ci ngërëmul borom bi tabaraka wa taala te mooy aljanna yàlla na ko yàlla defal sëriñ bi te defal nu ko noonu ñépp kon daal julli gi nañ xam ne jaamu yàlla gu màgg la goo xam ne bu ñu nekkee ci ak teew wala ñu nekk ci ab tukki wala wala ñu nekk ci kóolute wala ñu nekk ci ragal ak ragal lu ci mën doon rek dañoo war a sàmmonteeg moom ndax yonent bi nee na mooy awwalu yu yuxaasab alayhi al abdu yowma alqiyaama moom la njëkk rek la ci jaam bi ëllëg bis penc su baaxee rek jëfam yépp baax waaye bu baaxut itam mbir yi day xaw a doy waar kon nag yàlla na yàlla baaxalal te nangul sëriñ bi te nangul nu ay kàddu yu gàttul rek yu ma doon tënk ngir feeñal suñu mbégte ci liggéey bu rëy bi nga xam ne sëriñ bi liggéeyal liggéeyal na ko liggéeyal liggéeyal na ko lislaam di ñaan yàlla itam yàlla tàbbal ko ci liggéey ba sëriñ Touba liggéeyaloon lislaam ca Touba ba waxoon ca waxam juree ne wax fir liman banaw binaa rafian waxfir liman amarahum bihi jamii wa li jamii man aanahum ala binaiha alladi bi fadlika bi fadlika atala liggéeyub sëriñ bi yàlla na ko ci yàlla tàbbal ci barkeb sëriñ Tuubaa ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah ana kii bi karawaat